Abdoulaye Daouda ñu ngi lay euh, nuyu gërëm la ni altine bu jot euh, ci sa teewaay ci euh, yeewu leen bi pour Café Info tey di nga ñu gindi bu baax pour ñu mën a comprendre li nga xamante ni moo jëm ci coow loole ñu tuddee affaire président Lamine Diack on a préparé beaucoup d'éléments avec la complicité de du Ndiaye jëm ci mbir moomule d'abord dañ lay bàyyi nga nuyoo. ak téléspectateur yi lay xaar fajar bi. voilà nuyu naa téléspectateur TFM yëpp ñi ànd ak yeewu leen di yéen ñi nekk ci plateau bi. suñu paree xanaa gannaaw yeewu la ñu ndekkeendoo waaw quand comme comme comme comme yeewu nañu. waaw ñun yeewu nañ ca fajar bay yeete. alors euh, euh, d' abord yéenekaay bi waral coow li le monde la tudd. Mm-hmm. le monde. Euh, defe naa yéen borom xam-xam yi xam ngeen ni euh, euh, bu ñu defee jeunesse bi rek ci wàllu crédibilité d'abord ah xasuma leen mais dañuy wax rek parce que nopp amul kubéer et que ñu ngi ci mondialisation lu xew France tey dans quelques secondes dafay feeñ. wala danga nga koy yëg fii ci Sénégal bokk na depuis un moment ci yenn cas yi gën a ñàkk crédibilité selon yenn ci ay borom xam waaw léegi Pape dañuy dooree ni nga wax ci problème mu crédibilité journal bi. Mhm. ku yeewoon ki ko fondé. ne ko par exemple erreur bu rëy bu bi ñu mujj def nii am na. Mhm. ak yeneen yoo xam ni am na du la gëm Hubert euh, Beuve Méry. Mhm. boo ko yeewoon tey wax ko le monde li mu def bi euh, fan yi passé mhm. <laughs> ci l'affaire Lamine Diack. Euh, defe naa du du la gëm. parce que secoué na tout un pays hein. effectivement voilà. mais je vais au-delà de ça xëy na. ni nga wax ñi dul euh, may nopp bu baax liy xew ci actualité ak monde média France lay bett. Mm-hmm. mais Pierre Péan génne na benn livre boo xam ni c'est un brûlot de 650 pages ci ci ci euh, journal bi. Mm-hmm. bi mu génnee au lieu ñu ak Philippe Cohen. Mm-hmm. donc euh, xaw ma ndax xam ngeen Pierre Péan il fait souvent des des des livres journaliste d'investigation euh, français la. bind yi mu ci bind première euh, première parution bi ak jour bu njëkk bi 60 mille exemplaires lañ ci jaay. 650 pages yoo xam ni ñoom la ko jagleel. yoo xam ni seen ay jalgati ak seen i njuuj njaaj la ci feeñal. et il n'a pas eu de procès. parce que bu doon dafa wax loo xam ni demeewul noonu wala naka noonu la je pense que le monde ak ni mu toll ak tur fi ñu fi ñu yam. immédiatement dinañ ko yóbbu procès mais ils ont dû négocier. pour que livre bi au contraire dañu négocier pour mu bañ a am euh, retirage. ba pare leneen lu ma ci mën a yokk mooy dans les mois qui ont suivi ñett ñi ko jiite te ku xam kan mooy euh, Colombani ce kil représente aussi dans le journalisme en France Alain Menck euh, le troisième son nom m'a échappé mais ñoom ñett ñëpp dañ leen a mujj dañ leen a mujj te ñoom ñoo doon kilifa journal bi quand je dis kilifa vraiment mhm. ak ni ma wax pour ceux qui connaissent ñooñu li ñu tekki foofu eh bien ñu jëlee leen fa ça veut dire quelque part qu'ils avouent que li ñu leen doon tuumaal ci ci ci journal boobu dafa am. donc euh, commencé woon nañ ci waxtaan. et gis nga gis nga texte bi ma ci def même si je l'ai partagé avec quelques quelques rares dama bëgg dama bëgg ñu dem ci ñu dem ci étape par par étape ok ginnaaw ginnaaw le monde ak euh, euh, réputation bi mu am léegi ñun dafa am benn genre complexe sama classe gi dañu ko am ci ay tubaab. par exemple lu ñu bind. ci euh, yenn kaayu phrase yi rek. ñu ne xool ndax dëgg la ou pas on dit que. lu crédible la. Mhm. wala lu lu lu lu baax la mel nii dafa am façon wu idolâtré. je je li li am foofu. san yegg foofu sax. dafay mel ni ni ngay wax ñun dañ dul def suñu liggéey. su ma jàppee ci li nga wax bind nañ ko yam nañ ci bind nañ ko mais ndax dëgg la wala du dëgg. da ngay exactement damay woo ki yow yow da nga dañ la bindal loo xam ni wala dañ la waxal. Mhm. loo xam ni naka su dul noonu la. Mhm. mais balaa ma ci bind wala balaa ma ci balaa ma ci dem. mais je prends la peine de t'appeler mhm. damay woo bu dee soxna ay dara mii lañ ko bindal ma ma ma ma woo ko bu dee faama mii la ma woo ko. bu doon Bijou wala Mamadou ndiay le très sérieux mhm. mais ma ma ma woo ko c'est le béaba. c'est le voilà c'est le normalement mais en général comme ni ñu ko waxee justement nous idéalisons en général te maa ngi ko doon wax Bijou sànq les médias occidentaux temps yi su ma jumul du New York Times la Ndiaye mhm. seen benn reporter un grand reporter qu'on a pris la main dans le sac qui faisait du bidonnage mhm. di bind ay grands reportages si guerru Somalie fu nekk mhm. pendant je ne sais pas combien d'années ndekki musul jógee exactement bougéwul maître loo xam ni ci boppam la ko doon Euh, waa imaginer togg ko mais il est il est tellement intelligent que neexuloo neexul a jàpp africain buñ ci gis rek peut-être l'excuse nag Pape Cheikh qu'on peut évoquer l'excuse c'est manque de moyens mais ça ne peut pas ça ne peut pas excuser ça ne peut pas tout expliquer li ma doon ma doon manque de moyens fan euh, manque de moyens xëy na projeté wu immédiatement sur le théâtre des opérations wala procurer wu xëy na c'est caricatural du ñëpp aussi accès accès au euh, à la source mhm. par exemple Lamine Diack ni ñu ko jotee c'est vrai que du journaliste sénégalais yëpp ñoo amoon xëy na capacité wu lijjanti numéro bu ñu ko mën a joindre te du ñëpp xëy na tamit ñoo am ñooy am crédit crédit wu entre guillemets woo ko wala yu demee na ndegam fii ñun parfois dem ak dikk diggante fii ak ville. day day day jafe dañ la na soit problème mu oto amul la wala ni ngay wax tu veux joindre des gens. Euh, rédaction yi du du ñëpp mais ni ma lay wax nii ñun ñi ñi nga xam ni yàgg nañ ci métier bi am na ñoo xam ni crédit crédit rédaction sax duñ ko am faral di dégg ngeen koy wax ci rédaction bi prudence mhm. exactement loolu loolu aussi ci euh, circonstance bi peut-être opposants yi mën nañ ci sànneeku wax lu leen neex seen si seen rôle la ñu nekk ñoom mhm. Mhm. mais peut-être ñun ni ngay wax taskati xibaar yi booy seet café info bi ñu ko doon doog a am na am na plusieurs fois intervention yoo xam ne justement ci lii laa ko accès woon bu dee nit ñi voilà traitement de l'information xaw ma ndax ñi ngi koy fàttaliku mm. je l'ai plusieurs fois dit et ni ma lay wax sans rien Ndiaye gis na ko yow gis nga ko texte bi ma def mm-hmm. c'était destiné à quelques rares confrères avant avec même... qui justement avant même démenti bi di tombe mu mel ni mu mel ni tu vois dafa dafa loo xam ni dama ko doon gis la man leen il faut arrêter d'idéaliser les médias français mmh. et pas tout le temps reprendre euh, c'est une manie boo xam ni dañ ko am de tout le temps tout le temps reprendre sur un sujet qui nous concerne nous hmm. ce que disent les médias français et surtout et ñun am nañ ci suñu propre jàngat am nañ ci suñu propre traitement bu ñun nit ñi ñu wax ñi ngi fii mm-hmm. ni ñu cité ñi ngi fii mm-hmm. alors et même encore une fois ni may wax leneen euh, lu ma ci jot a évoqué mooy bu dee ñooñu ñi ngi fii mais pourquoi pas nous-mêmes essayer ni ma lay wax ak PV yi ñuy cité c'est avéré ou pas mënuñu ko xam parce que gis teguñu ci bët wala waa ji dañ ko jox extrait PV wala joxuñu ko extrait PV dañ ko photocopier jox ko wala luñ ko ci déey rek la. Mm-hmm. il faut être prudent ba xam ni may wax. Mm-hmm. ndax PV bi la yor. Mm-hmm. nga gis facsimilé bi gis signature xam ni lii c'est du béton li ñuy wax béton armé mi ngi nii. donc nga mën ci peut-être sori. mais sinon. sinon boo ci yorul yooyu yëpp c'est très difficile. souvent de se de se prononcer sans risque de se tromper. on va on va revenir sur les faits. pour permettre ñi seetaan gën ko mun a comprendre. Euh, ñoom euh, journal boobu di Le Monde bi ñu ko bindee. ba noppi xam ni def nañu erreur dañu excuser wu alors article boobu noonu ak excuse bu le monde on dinañ leen ko liiral mais mais euh, Pape nag je pense que excuse rek doyul dans ce cas on a appelé des journalistes sénégalais excuse bu bu la justice je pense que lii li koy faj mooy mm-hmm. tamit ñii ñu yóbbu leen oui devant la justice c'est pas des excuses parce que c'est pas de moins cinq ñu toj réew mi non c'est vrai bu fekkoon ay sénégalais lañu loolu dañ leen du ñu dañuy dañ leen def comme ñi ñu def journaliste yi ah oui dañ ah leen convoqué police bu fekkoon benn média donc moi je pense qu'il faut pas se ah contenter c'est trop léger c'est trop c'est trop léger dans la version électronique effectivement surtout dans le chapeau pour nit ñi lire ak da ngay jaay sa papier ëllëg mm-hmm. je vous incite à lire le journal en disant que ci extrait PV yi parce que boo liiree ni may wax euh, naka lañ koy wax le chapeau justement c'est dañu oui sur la version encore une fois je le répète électronique xam naa bu ñu demee ci élément bi dinañ ko gis mhm. dans dans le corps du texte il, le, le, président Lamine Diagne dit que qu'il a financé euh, donc euh, des réseaux de l'opposition et, et des jeunes. Oui, en 2000. Mais dans le chapeau, on retrouve Macky Sall version électronique de la oui. campagne du oui. candidat Macky Sall. Macky Sall. Et bizarrement, dans le corps, mais toujours de cette version électronique. pour ki connaît booy cité ak yu demee noonu c'est entre guillemets man bi ma liiree texte bi ñi may wax ñi ma doon attirer seen attention loolu laa leen wax man leen attention man li ma jaaxal campagne ñu diw. Mhm. mais dans le corps dans tous les passages où on cite le, le PV en mmh. question et je prends encore la précaution d'ajouter si ces extraits de PV sont avérés pour te dire toutes les précautions donc que je prends oui. je n'ai pas lu li nekk ci seen chapeau bi ni entre guillemets cité qu'il a dit que campagne yu Macky la la la la la financé donc pour moi il y problème dès que ma lire texte bi j'ai dit attention entre ce qu'ils annoncent dans dans leur ak dans le corps du texte les propos qu'on attribue à gisuma benn yoon entre guillemets fu mu ko waxee donc man déjà mécanisme de soupçon uh-huh. développé wu na ci man par rapport ak ndax lan prudence waaw mooy prudence bi ñuy wax ci journaliste après ñoom ñu ñëw par rapport ak seen jéggalu ne ñu ngi jéggalu ci confusion bi nga xam ne def nañ ko mm-hmm. ah, on vous montre d'abord euh, euh, naka la affaire bi demee moom du Ndiaye balaa ñuy ñëw ci seen excuse ñoom euh, waa le monde waaw naka naka la affaire bi defee dama ñëw ci defoon naa benn récit vendredi 18 décembre 2015 journal Le Monde dafa publier comme ni nga ko waxee dafa publier benn article bu incité ci président Lamine Diack ki fi nekkoon ex président I2AF maanaam li mu yeggee enquêteurs yi ñu déglu récit bi dañu français bii di Le Monde daal biral ci xëtam mu njëkk kii di Lamine Diack nekkoon fi président fédération internationale d'athlétisme mi ñu tuumaal corruption journal bi daal di biral ne Lamine Diack lan la daal di wax ñii di enquêteurs yi. nee la ci jamono jooju laajoon na ñu am ndam ci jongante gi doon amal ci Dakar maanaam jëlee fi nguur gi fi woon mu nekk ay xibaar yuy fësal ne Lamine Diack nan la daal di def daal di doon jot ci koppar yi nga xamante ni mi ngi ñuy xamal ne mi ngi ko doon jot ci ñi fédération russe. ñu ngi jàng ci journal bi muy gën a fësal xibaar yi Lamine Diack daal di fësal ci kanamu enquêteurs yi. laajoon na kon ñu am ay koppar lépp dugal ko ci jug yi doon amal ngir bokk ci campagne bi waaye woo askan wi ci ku ci nekk taxawaay ga nga war a am ci biir réew mi kon laajoon na ma am financement ngir louer ay woto ay salle ak lu jëm ci meeting yi. ci beneen wàll journal bi daal di contacter ñii di waa présidence de la république bu Sénégal élage kase Kassé xamle ne ni Macky Sall mosul laale ak uh, koppar bu jóge ci Lamine Diack uh, rawatina buy laaleek waa Russie moom sax xam la ne ni Macky Sall campagne 2012 am mi ngi ko amalee ci ay uh, koppar bi jóge ci militants yi waaye nekkuñu fi woon di def maanaam campagne à l'américaine kii di Lamine Diack am tey juróom-ñetti fukki at ak ñaar nekkoon ci bopp i 2 lu toll ci fukki at ak juróom-ñaar tey jii nag mi ngi ci guddi gu bër setagul loolu vendredi la woon. Mhm. Euh, bi nga xamee ni euh, journal Le Monde. Euh, def na boobu boobule jëm ci lii mu tuddee entre guillemets procès verbal bu président Lamine Diack jëm ci coow loolu. Mhm. donc nii la affaire bi juddoo. la même jour. waaw àjjuma ci ngoon gi. Mhm. Alassane Samba Diop jàngal ñu leçon de journalisme BABA. aller à la source. qu'est-ce qu'il a dit. dafa interroger directement Lamine Diack moom mu ne dafa Macky Sall mi ngi ko gis ci bi mu amee après victoire am 2012. mu ne citéwul benn yoon Macky Sall ñu déglu euh, élément Alassane Samba Diop bu RFM sa xaalis sa koppoor dugal ko pour campagne électorale président Macky Sall dañuy wax ne mos waxoo tudd woon benn kii wax ñaata lañ woon candidat yi bi ñu woon treize a financé campagne bi kenn ci ñoom wax naa rek leen na rek ne bi ñu xalaat am leen ne man bi ñu gënt guddi xam naa def naa science politique xam naa ne waa président bi def deuxième tour te bu defee deuxième tour dafa nekk moo koy gagné kooku moom wóor na dafa nekk nag kenn xamu ko woon loolu dañuy woote bi wax la doon as doon Macky Sall moom mu def campagne bu baax gagné élection Macky Sall gisuma ko avant élection yi ginnaaw mu ñëw ne ma président yaa war a nekk suñu candidat pour la transition ma ne ko waaw bu leen defee consensus bu leen d' accord man maay seen candidat la may déglu ma daal ko ñëw. bu fekkee dafa nekk rek war nekk kenn fukk ñaar ak ñaar wala fukk ak ñett yi kan jàpp du bokk ma man nekk président euh, gis naa ko rek moo gagné ba pare. beneen xibaar tamit jib na nee nañu yow yaa financé Khalifa Sall pour kii di Karim Wade bañ a nekk maire Dakar. dama ne jàppale naa daal élection locale yi en deux mille neuf. parce ko personnalisé. jàppale naa itam def naa lu may itam pour opposition bi gagné 2012 personnalisé woo ko parce que maa ngi xam ne moom lay doon bii ne tërmi tër Alassane Samba Diop ci tàng tàng bi la séqoon waxtaan ak ki nga xamante ni moo di président Lamine Diack loole itam euh, ba tey ci fee yi la bokk. Mhm. bi ci topp taskatu xibaar bi nga xamante ni moom moo waral coow li te bii di article bi nekk ci yéenekaay boobu di Le Monde. Mhm. moom itam wax na. waaw Stéphane Mandar ci dimanche bi bi nga xamante ni la Monde excusé wu nañu waa RFM tamit dañ ko woo moom mi nga xamante ni moo bokk na ci ñi bind article parce que keneen ki mu ngi tudd Yann Boucher. Mhm. waa RFM woo nañ ko moom tamit mu expliqué ni moom mosul bind ci article yi euh, cité président euh, Macky Sall ci article bi moom tamit ñu excusé wu comme ni ko sénégalais yi kiiwee ñu déglu élément Stéphane Mandar ci au micro de RFM. ñun xibaar yi ñu joxe ñu ngi ko jëlee ci ay documents yu leer documents yooyu sax euh, mu ñu ngi biral bu baax li lamin Diack daal di yegge ñii di enquêteurs yi ak ci kanamu juge yi. ci document yi ñu ngi ci jàng ne Lamine Diack musul tudd turu kii di Macky Sall ne daal di na koy jàppale ci élection 2012 yi loolu la Lamine Diack daal di yeggee ci kanamu enquêteurs yi li ñu biral ci sunu xibaar yi dañu wax ne bu baax ne Lamine kii di Lamine Diack dafa daal di jàppale opposition Sénégal ci atum 2012 loolu la Lamine Diack daal di yeggee enquêteurs yi. waaw est-ce que daal dinañu yaakaar yeneen xibaar yu gën a ñoŋ ci mbir mi. Euh, waaw ñu ngi koy yaakaar bu baax ndax euh, kii di juge bi nekk na juge bu nga xamante ne dafa am xarañte ak expérience bu mag. Euh, ñu ngi yaakaar ci moom ab l'enquête bu gën a yaatu ngir mu gën a indi leeral ci mbir mi. donc ci tàng-tàng bi le euh, RFM seex waxtaan ak ki nga xamante ni moo di Stéphane Mandar mhm. comme ni ko Ndiaye waxee bokk ci journaliste yi nga xamante ni ñoom ñoo bind article bi mhm. bi ñuy wax ak moom fekk na euh, article bi jàll ba toj réew mi mhm. après ñuy doog a jéggalu excuse bu flat on vous montre excuse euh, jéggalu bu yéenekaay bii di Le Monde ñoom ñu ngi wax euh, comme ni ngeen koy gisee noonu dama koy lire ci français après ngeen jàppale ma ci tekki gi ndax <laughs> euh, euh, après bi ñu ko bindee ñoom ñu bind ci nu mu gënee gàtt Précision. Cet article est un résumé de l'enquête publiée vendredi 18 décembre sur le monde.fr et dans la version imprimée du Monde datée du 19 décembre. Mmh. Une première version de ce résumé évoquait un lien avec la campagne de Macky de Or, les déclarations de la MINDIAC n'impliquent pas directement mhm. la campagne du président sénégalais mais des réseaux d'opposition à son adversaire de l'époque Abdoulaye Wade nous présentons nos excuses à nos lecteurs pour cette confusion déggal loolu nous présentons nos excuses à nos lecteurs pour cette conviction euh, confusion plutôt la version complète elle ne mentionne pas de lien avec la campagne de Macky Sall. Pape xam nga fii li ci grave sax booy seet il ne présente même pas donc d'excuse au président oui au Sénégalais que nous sommes et au président Macky Sall <laughs> la ñu présenté ay moo tax sànq ma naan la ñii plainte plainte tamit dalee na war mhm. ah oui dafay yomb trop c'est trop facile et maa ngi naan le juge là est un juge xaw ma euh, lan bu juge bi mel melee noonu moo tax ni ma wax man je n'accepte pas vraiment foog sénégalais yi am fulla quoi. référence presse française référence justice française comme si nous on n'avait pas euh, ay juges yu yu yu yu compétents comme si on n'avait pas des journalistes yu yu compétents je ne suis pas d'accord mais ni njàng mi bokkul justement ils ne sont pas plus brillants que nous ils peut-être nag mun nañ nangu ñu ëpp ñu moyen et c'est c'est le cas ni may wax se projettent très vite sur les théâtres d'opération e autres là d'accord c'est vrai mais ils ne sont pas plus brillants que nous même école yi la ñuy jàngee parfois sax ñun suñu école yi ñoo gën a nekk mbaxalu xeer fop seen seen école yooyu mm-hmm. université de Dakar di la mais est-ce que euh, euh, ah, oui non moi je ne peux pas être donc pour revenir à ce que je disais tout de suite mi ngi junju naan di di kañ seen juge boobu qualité mag yu demee Van Ruymbeck bu dee il est aussi efficace qu'on le dit nañu woo au même titre et je ne suis pas d'accord aussi même si comparaison n'est pas raison comme je le dis pourquoi ñu naan ay ñuy arrêté comparer Platini ak ñi Platini a avoué que Blatter da ko jox. Euh, lu xaalis bu ëpp ñu oui oui parce que dafa mel ni dafa am justice à double vitesse loolu justement noonu la dafa mel ni dafa am justice à deux vitesses te boo koy seet même en politique day feeñ xoolal keroog ni ñu naroon a def Guillaume Soro deuxième personnalité de l'état de la Côte d'Ivoire dem fa noonu laa koy woowee un petit juge bëgg ko indilu comme si c'était un voleur de voiture du du du seizième ou du du dix-huitième arrondissement comme ça la mm. ñoom xalaat nga fii juge euh, benn juge sénégalais dans dans dans une affaire l'affaire du sang contaminé contaminé par exemple à l'époque le sang contaminé ah en France loolu xalaatuñ ko sax su touché woon benn sénégalais mm-hmm. l'affaire du sang contaminé Fabius était euh, premier ministre à l'époque ak ñoom Georgina Dufoy ñi mu impliqué woon yëpp à l'époque est-ce que xalaat ngeen Fabius ba mu fi ñëwee keroog parce qu'il y avait un Sénégalais à l'époque bu ñu bu ñu joxoon sans contaminé boobu alors que da doon nañ ko mettre en cause wala yu demee noonu un petit juge ne voilà c'est l'occasion le ministre des affaires étrangères de la France est là alors qu'à l'époque c'était lui le premier ministre responsable en tant que nangam sangam amenez-le-moi mm-hmm. loolu xalaat nañ ko. c'est impensable. Claude Bartolone du fi ñëw ñu naan ko ñu naan ko un petit juge entre guillemets. Mm-hmm. du du pour que les sénégalais demal wuyu ji ko mu naan dañuy dañuy déférer ji à la mm-hmm. convocation wala ñu koy mandat d'amener. Mm-hmm. c'est impensable il faut que nit ñi sénégalais yi. africains yi en général am fulla booy seetlu. français yi ak occidentaux yi ñi ngi respecté ñi nga xamal xam ne ñooy dawal ñooy dawal ak ñoom euh, li may wax nii fu la googu mhm. exemple bi may joxe encore mooy Maroc mhm. bi ñu fa seen euh, chef de service sécurité xaw ma lan demee mhm. ñu ko ñu doon ko jéem ñu doon ko jéem a entendre mais ils ont ils en ont fait un tel extraordinaire extraordinaire ba dañ ko mujj woowaat pas pareegu ma dañu ah. mujj woowaat le marocain bi ñu bëggoon entendre quelques semaines après ah. mais décoré ko à l'Élysée alors que quelques jour avant dañ ko fa bëggoon troxal mais ils ne l'ont pas accepté ils ne l'ont pas accepté alors pourquoi ñun tout le temps on accepte que ñuy ñuy jox ay leçons que ce soit en matière de justice en matière de presse de de bonne gouvernance oui alors que fa la ëppee jalgati nag defe naa jot na ñun moom d'accord ñu benn yoon ci xoxatal gi ñuy xoxatal yi mhm. d'accord ñu benn yoon ci bu ñu bindee ñu defee seen liggéey ñu leen di sonal di leen convoquer ak yooyu loolu et ma yokk aussi ni waxuñu benn yoon que mu am justice pour les riches comme par exemple pour euh, les pauvres pour le président Diack et pour les pauvres ça aussi on ne dit pas léegi léegi bëgg nañu itam mhm. suñu journaliste yi nañu gën a prudent tamit mhm. rek ni damm na du rôle journaliste. Mhm. loolu itam defe naa il faut il faut il faut ñu bàyyi ci xel parce que xam nga média dafa doy waar télé mhm. dafa doy waar rajo dafa doy waar lii journal bi journal bi nekk France bind. Mhm. mënoon na toj réew mi. mais yow ah non c'est que yow li ñuy wax ni sax yéen ñuy people xam ngeen ci dara. nit ñi toujours ngeen ñam. écoute euh, voilà. xoolal fi mu mujjee tey on convoque des journalistes comme ça sonal leen et tout wu ci donner l'information telle qu'ils l'ont reçue. dañuy nekk di joxe seen avis di critiquer di joxe opinion. et non non Bijou sax loolu mën nañ ko mën nañ ko comprendre. comme on dit les faits sont sacrés. le commentaire est libre après avoir donné les faits à côté mooy li ñuy wax y a les gens qui te permettent de te prononcer. Euh, en général ils ne donnent même pas les faits. créer seen propre des opinion. choses comme ça voilà tëb fee yi gën a focaliser aussi sa opinion bopp alors que dañuy wax que neutraliser lañ war a demee même si c'est très difficile à faire faut faire euh, attention vérifier l'information boo liiree chapeau bi nga lire au moins li ci biir boo gisul ci biir guillaume yi euh, mm-hmm. fois Lamine Diack citer le président tu vas pas citer le président li ngay wax li ngay wax je suis je suis d'accord avec toi ni ma la wax mécanisme de soupçon boobu man ni ma la wax laa développé ni ko wanee sànq donc bi c'était et dans le résumé tu mets le, le nom du président sénégalais et bizarrement ni may wax dans ce résumé là les passages où on cite fépp fépp fépp où on cite avec des guillemets des passages du PV encore une fois moi ba léegi je prends la précaution de dire si, si c'est le PV voilà si ce sont les PV et en ces termes la avéré mhm. eh bien man gisuma ci fu ñu que le président Lamine Diack a nommément cité le président Macky Sall dans cette histoire là ci laa immédiatement y a problème mm-hmm. donc ba may échanger li ma wax ak quelques confrères ñoom dinañ xam ni ma ci jot waxal man leen attention lisez le man liir naa l'équipe bi liir naa le monde bi mm-hmm. mais dans le corps gisuma benn yoon dans avec des guillemets. te bi ngay bind loolu c'était avant même wàllu moom li ma lay man il faut faire attention pour pour pour suñu xarit yi seetaan lan lañ ci war a comprendre. ci li am boobu ba tey ah coow li bëri on parle et je me suis rendu compte loo xamante ni man j'en parlais euh, chez moi je disais léegi comme le monde euh, seetal nañu président Macky Sall xam naa journaliste yi nañ jéem xool ñeneen ñi nekkoon ci opposition bi euh, pour xool ndax du ñoom ah ay Youssou Ndour. non je pas li li ma liñ ci war a liñ liñ ci war a jàngatee encore une fois mooy li may wax en tout cas pour nous. Mhm. concernant ñun suñu métier ak euh, xëy na cadre rubrique bi ñuy def Café Info. Mhm. mooy la prudence. Mhm. ak ak dans le traitement de l'information bi nga xam ne ni ma la wax depuis début euh, euh, rubrique bi ak saison bi yeewu leen ñu koy kii loolu laa commencé woon wax depuis le début je ne parle que de ça il faut faire attention il faut faire attention leneen li ñu ci war a jàng aussi mooy li ñu doon wax sànq wax nañ ko ci biir c'est pas parce que ce sont des médias occidentaux qu'il faut les idéaliser lu ñu euh, et puis un fait nous concernant nous Sénégalais impliquant des sénégalais nga xam ni nekkuñu sur la planète Mars mën nañ leen jot. Mm-hmm. nañ leen jox la parole. Mm-hmm. ñu wax même bu dee on maintient à côté. Mm-hmm. les accusations les écrits de ces journaux là. à côté qu'on ait la version. la version vraiment de nos compatriotes ou de en tout cas même bu dul nos compatriotes bu doon ñeneen aussi. ñu war leen a impliqué et bien qu'ils se prononcent. ñu ne kon ñaari version yaa ngi nii ñii nee lii. ñii tontu nañ lii. au moins nit ñi am. équilibré fu mën a sukkandiku. beneen bu ñu ciy jàngat aussi mooy li ma la wax naw gi nga xam ni tubaab yi war nañ ñu ko naw mais loolu aussi ñun. ci ñun la fayda ñu ñuy wax borom kenn du la ko kenn du la ko euh, may. Mm. moo tax ma ni pour le cas du monde là pour man l' état a des avocats. Mm. nañ leen a plainte waruñu waruñu. yomb day yomb trop. <laughs> bind lu mel nii après xëy benn encadré et ni ngay wax encadré bu ndaw encadré bu ndaw lañ ko def ci suufu affaire bi làq ko fenn et puis ni ma lay wax jéggalu ñan non lecteur hmm. donc ils n'ont même pas di jeneen ñi ci tudd wala nii wala yu demee noonu beneen bi ma ci jàngat aussi par rapport ak justice su France lay doon ni may wax nu na réclamons pas que la justice bañ a def Euh, seen liggéey ci cadre affaire président Lamine Diack mii mais nañ ko def nañ ko def bu dee comme dañuy woote rek ne foofu la euh, raay ba téene en matière de droit ak nañ ko def pour tout le monde Michel Platini am nañ lu ne weng ah mi ngi foofu réglé wuñ ko et qu'on nous arrête de dire arrêtez de comparer eh. Diack ak ak ak euh, Platini eh. pourquoi on va arrêter de comparer de les comparer ban juge ba léegi français nga dégg mu woo Michel Platini ne ko les deux presque deux millions de francs suisses yi nga recevoir sans contrepartie. nga ni Pape yow koy seqal fii même bu dee cinq cent mille francs wala un million di ngeen bind ci kayitu ah suuf ah ñoom nee nañ ci diggante kàddu la ñu waxante plus d'un milliard et quelque. c'est trop facile. c'est trop facile et huit ans après la ko ko fay. ani contrat bi. Mm. ani li ñu seexoon mm. y a jusqu'à présent aucun juge français bu mm. ko woon ko kay expliqué wu au-delà de ça aussi est-ce que acharnement bi les médias français di mettre à sulli affaire IAF bi ils le mettent à pour pour platini pour mu leer un million euh, huit cent mille francs suisses yi mu jël leer non je suis désolé donc qu'on arrête de nous dire mm-hmm. même si encore une fois je le répète nous ne euh, réclamons pas une justice à deux vitesses mm-hmm. mais justement justice égale pour ñëpp voilà en tout cas ñu ngi lay gërëm bu baax Abdoulaye Der ci leeral yooyu la nga xam ne indi nga ko ba ñu gën a mën a comprendre coow li ñu tuddee affaire président Lamine Diack Mamadou Ndiaye merci aussi euh, ci euh, ni nga recoupé boole euh, xibaar yi dajale ko en tout cas ñun daal bu kenn yàq suñu stabilité réew. Mhm. muy journaliste ak opposant ak. président jàmm rek la ñu bëgg waykat ba waxoon na ko gaal gi bugg ku fi ñëw te mënoo joow yaa réew bi donc nañu joow normalement merci beaucoup Abdoulaye Der pour Café Info ak ni nga ñu gindee euh, ba ñu comprendre actualité boobu le 8h56 euh, mooy doog